xaalal leen yoon. Hmm. ne leen def leen leen neex du fi am wax bi yëpp loolu la te yaakaar naa Ousmane Sonko tontu na ci wàll woowu euh, xamal ko ni am na fi maanaam ñu ñuy wooyee borom ñaari tur léegi dem na ba ay jigéen sax def nekkee ko waaye teewul ñun suñu diine mayuñu ko daganulu ko te duñu ci ànd. mu wax ko moom premier ministre bañ ko wax sénégalais yi tamit ànduñu ci xam lan moo euh, ma jaaxal mooy ni débat bi peut-être tey lañ ko wax ndax Mélenchon bi fi ne ñëpp xamal nañu Jean-Luc Mélenchon ca bitim réew ca France ba mu ne daanaka fanweeri a ngi nii muy xeex mbir moomu pour nee na ku nekk mbëggeel wala bëggante ñu ko wutal frontière ci diggante góor la jigéen ak ah, góor ak jigéen la wala góor ak góor la wala jigéen ak jigéen loolu yàgg na ko xeex moom euh, li xale yi di wax affaire am la waaye ñun du suñu yoon new ci euh, fi may xawee am xel ñaar même pas xel ñaar sax mais fa ma dul d'accord mooy dëgg la naam Ousmane Sonko leaderu parti Pastef moom moo dalal Jean-Luc Mélenchon bokk ci parti la France insoumise muy ñaari maanaam euh, bañkat nuñ ko mën a waxee ci seeni réew kii di bañkat ba mu yóbbee ko lu mu ko yóbbee muy euh, euh, Ousmane Sonko mais tey teewul mu am ci ndam ci bañ ba mu bañoon kële tamit yàgg doon bañkat ca fa mu ne ca France am ñu ko ci d'accord am ñu ci d'accordul ca na muy doxalee ñoom ñaar ñoo tase lañu waxtaanee malheureusement mbirum góor jigéen bi moom moom lañ jël teg ko ci une journée yi mais am na lu ëpp importance à mon avis xam ma leen mbirum les euh, li nga xamee ni moom mooy euh, base française yeeg étrangère yeeg yi nga xamee ni ñoom ñoo jël euh, suñu suuf ñu jox leen ko mais man pour man loolu la ñu war a amal taxaw taxaw seetlu parce que lii jëm ci mbirum góor jigéen président bu fi ne wala njiit bu fi ne bu tubaab ñëwee dinañ la wax liñ ci xam liñ ci gëm Macky Sall def na ko ci kanamu Obama Ousmane Sonko def na ko en tant que premier ministre mais surtout en tant que leader d'un parti politique ci kanamu Jean-Luc Mélenchon xamal ko ne ñun d'accord nuñ si mais dafa am mais xam nga lu ñu war a lijjanti fi ñu toll nii ci mbirum góor jigéen yooyu ñu wax mais neen lijjanti suñu xale yi euh, dessin animé yi ñu leen di tagal. ci télévision yi ñuy def apologie wu góor jigéen wala boroom ñaari tour nuñ ko mën a woowee noonu ci dessin animé xale yi di ko seetaan nga gis benn super héros benn superman am far am far di góor am far. nga gis euh, ci yenn dessin animé yi ba ci mbirum ay tàngal ak chocolat yi nit ñi di lekk ñu ci wone yenn ci ay acte ci ay góor jigéen. xale yi mu doon benn message subliminal buñ koy woowee noonu boo xamee dañ koy ancré ci seen subconscient sans s'en rendre compte ñu màggee noonu wala ñu jàpp ni c'est la normalité alors que demeewul noonu loolu la nit ñi war a xeex xam lu ñu war a xeex mooy kooku ne ni moom sëriñ daara la ñu jàpp ko bind ko ci journée ni lan la def dafa sàkku ay xale di ay taalibeem ci biir daaraam di ay taalibe yu góor ñu ne lan ñaata yoon lañu gis ci journaux yi daara bu violé ay ay nongom te góor la loolu du góor jigéen ñaata yoon lañu gis ñu jël borom ñaari tuuf def ko star ci réseau sociaux yi ay TikTok ak yu ni mel man damay fàttaliku ci ay jamono yaa peut-être des dizaines d'années ci ginnaaw am na ñoo xam ne dañoo siiwoon ñu ngi leen jël daanaka yàlla ma yàlla baal defu leen genre référence dama ciy tudd kenn. ngeen baal mu xam naa dinañ ma jéggal ak ay mbokkam Mañang Kassé ku xamul tour boobu ñu ko fàttali ko xam nañ ko te loolu sa existe depuis belle lurette nuñ ko mën a waxee exister nag ne veut pas dire accepter luy am ne veut pas dire que dañ koy accepter ñoom seen dëkk yi ñoom tàmm nañ ko xamul tax ay Louis XIV ak yooyu mais nekkuñu woon ay nit ñoo xamee ni jigéen rek la ñuy soxla dañoo nekk di dem ci jigéen. ba sonn ci jigéen am ci seen cour ay góor ñoo xam ne dañ doon jëflante ak ñoom seen roi yi ñoom français yi seen roi yi seeni jamono ils étaient également avec des hommes dama koy wax ci tubaab ñu dégg ko ndax tubaab la ñuy làkk ñoom ça veut dire que mbirum homosexualité ça existe depuis fort longtemps mais ba ci diine sax wax nañ ko Lóot lan moo ko indi bu ñuy wax ci yonent yàlla Lóot ak jamonoom ah loolu lan moo ko waral mbirum góor jigéen wala ñaari tour tur yëmut yëmut ñu ko doon def rek de mais dañu ko araamal tifaaxan ni ñu mm-hmm. koy waxee mm-hmm. te toutes les religions révélées récemment y a eu un débat qui a fait mais couler encre et salive mu indi coow lu dul jeex ci diine chrétien ndax lan parce que dañu ne nii pape ba la mu bind wax ko ci union euh, bu mën a am Afrique ne nii ñun d'accorduñu Sénégal génn ne ni ni ngeen ko déggee ak ñu nu ñu ko déggee du benn waaye ñun duñ ko mës a d'accord ça veut dire que c'est un débat boo xam ne tous les jours ce débat sera posé mais nu en tant que parent nu en tant que musulmans en tant que chrétiens en tant que croyants nu ñu mën a wax xam nu ñu mën def mooy fexe xeex ko ci nu ñuy waxee xeex ko ci suñuy doom yi nu ñuy xool xeex ko ci euh, nu ñuy doxalee ci biir réew mi pour que ku ko bëgg a jéem a imposer tamit liñ naan dangay dangay da euh, lajj waaye du ma sa jàll. Euh, ces propos yi nga xam ne jib na si rencontre bi yàlla tey bi nga xam moom dañu réserver Ousmane Sonko nekk premier ministre euh, ci ak bien sûr étudiants yi balaa ñu dugg ci